سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقديمه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أنت رحيم سمس الرحمن المؤمن المهيمن المنام اكفي البلاء وجملة الوباء والسوق إلى الأداء كل ذلك kon bokk jullit ñi mbokki taalibe yi ñoo ngi di leen siyaare di tàmbale suñu kàddu ci sant suñu borom gërëm ko moom mi ñëw defal taw feexu fekkee jataay bi yàlla ñu ko yàgg di fekkee at yu bari muy yokk ci biir ak ci biti ci barki Cheikh Moussa di tàmbale suñu kàddu ci sant bu baax di gërëm sant bi Cheikh Moussa Touré moom mi nga xam ne buñ yëgee yàlla di ko dund di ñaan suñ borom di des suñ suñ dund lépp lu lu suñ borom gërëm buñ wéetee buñ wéete di biñ daje moom moo ko sabab loolu nag ku ko yàlla may ci fii jamono toll may na la lu tumuranke koo xam ne buy wax day ñaan suñ borom mu wax lu dëppoog lu gërëm buy jëf mi ngi ñaan suñ borom lépp lu jëf na dëppoog luy jur ngërëm buy fas ci xolam it daanaka nit ci bëgg a fas mooy lu koy jural gërëmal yàlla dund bi ko boromam baaxee ah war naa sant bu baax ndax mën naa ne loolu moo fi indi ñëpp waaye ñi ko yàlla may mën nga ne ñu néew la te loolu lañ yàlla defal ci baaxu sant bu tedd bii kon dañ koy ñaanal yàlla na ko fi yàlla yàggal lool te wér ci barke sangam kilifaam Cheikh Moussa Cissé Ndiame Daaw su ko defee nag daanaka li ñu naan njàmbaas yàqul sër waaye li fi jaar ci kàddu buñ ko seetantalee doy na sëkk yóbbal boo xam ne dina xital kenn ku ci nekk mu gën a yittewoo diggante moom borom

te mooy nekk giñ jaa nekk jaam am borom yàlla bu la sàkkul ndax di nga fi am xarit ndax di fi am mbokk ndax di fi am leneen lu mën a doon loo war a rafetal sa digganteeg moom déedéet da ngay nekk jaam am borom soo ngay nekk soxna ci borom kër wala nga nekk doom ci wéyjur wala nga nekk xarit ci xarit wala dëkkandoo ci dëkkandoo diggante bi jiitu nag mooy sa digganteeg sa borom. moo jur yee ca des yëpp te yaa ngi rafetal yii boo ñaawalee bu mag bi nga xam ne moo sabab bii dañuy jàpp ne sa nite dafa des waaye diggante bi jiitu te war a gën a rafet mboolem diggante yi te yittewoo bi ngay yittewoo sa diggante ak sa borom rafet daf lay gën a xirtal ci yeneen diggante yi sosu ndax yàlla maanawul ci diggante yooyu bëgg naa yàlla te bëgg gi wér xam naa yàlla te xam gi wér di ñaawal diggante yi sosu ginnaaw wéy jur soxna borom kër dëkkandoo wala xarit sa bëgg yàlla des bëgg yàlla bu amee bëgg bi nga bëgg suñ borom dafay jeexital ci jëf jëflante bi ngay jëflanteeg ñooña ndax ñooña bindeefu yàlla la ñi ki yow te yàlla tànn ngeen bokk daje ci kaw suuf ñi nga xaritool tey bu neexoon yàlla nga dund ba dee ñuy soog a ñëw wala ñoom ñu dund ba dee ngay soog a ñëw yàllaa leen bokk boole ci kaw suuf ngeen di dund boo leen xoolee bët bi rek sopp leen jëflante ak ñoom ci jëm yàlla kese tax dana jàppale. ndax may ci sëy sax ki yàlla dogal mu nekk sa soxna xalaatal ñaata soxnaa wàcc ci kaw suuf yu weex yu ñuul yoo xam ne dund nañ ba faatu kenn xamut nu mu toll ci milliards yi milliards xoola ki la ci yàlla tànn ngeen bokk jamono yàlla juddal cofeel seen diggante ba soxnaa boo ko xoolee bët bi rek. yërmande de ko ngir jëmm yàlla ànd ngir jëmm yàlla war naa jàpp dara soxna si xool bët bi borom këram moo tax jiital yàlla ci lépp gën a wóor rafetal lépp ji doom boo xamee yàlla teg way jur foo xam ne way jur sax bu ko fa tegu tam du ko bu génnee xam boromam jiite bu ci boromam bu dir sa ci kër gi dina xool way jur bët koo xam ne dana am ko ca dool leew luy gën a rafetal maqaamay doom te bu ca nekk tam kenn du ko yedd te mën naa rafet la ko def mooy xam bi mu xam boromam da koy niitalaat ci nga xam ne ci la suñu borom jaarale ak wàccam ci kaw suuf mu mën a jaaree ci moom bay wut yàlla suñu toog dafa wax ne wallazina jaahadoo fii naa la nahdiyannahum subulanaa mu ne boo dee wut yàlla ci ku ne di ko wut ci fu ne di ko wut ci lu ne dina jàpp sa loxo ni la maa ngi waaye da koy wut ci ku ne mbindeef mu mën a doon booy jëflanteel ci soobu yoonu yàlla dafay jeexital ca jëflante ga muy wut yàlla ci moom kooku doo dégg mukk ne diw nax na ko da koo nax ba lekk xaalisam da koo nax ba jaare ko ci yàlla yóbbu lam yoroon déedéet boppam la nax waaye waa ji mën ko nax ndax bi mu lay jëfal jëfalu la yàlla la jëfalee ci yow kon loo ca defam noo ko defee moom taxu koo jóg moom yàlla ji jëflantee na lépp taxaw na kon doo ko naxati benn waaye ñëw nit sëñ tubaab ni ko ay wa rasul ay wa rasul sëñ tubaab du sa gàntu ndax baatu rasul bi mu ciy dégg mu fàggu ba ñëpp ndax ku ne xamee fi teg saa saa waa ji jël si waat ne ko indil naa la weñ ba ma daal indil sëñ tubaab ne moom amul ci genn soxla baat bee tax kon daa mel ni bu ko bëggoon waxi bëgg koo dóor day ñëw ne ko ay wa rasul rek sëñ bi lu ko gàntal waaye ndax nax na déedéet boppam lu tax waaye moom liñ ci wut am na benn waaye nuyoo naa moom mu ne ko noo tudd mu ne ko Mouhamad sa wayjur bu góor mu ne ko Abdallahi sa wayjur bu jigéen mu ne ko Soxna Aminatu mu ne ko foo dëkk mu ne ko Medina gii ci saaba sëñ Tuubaa dugg ci biir di génne di ko jox di génne di ko jox ba mag yi ñoo ne ko dawal gaaw sëñ bi daa sukk ko keneen la loolu gis jamono jooju loolu dafa mën a nekk. gis nga gis yàlla gi ñuy wax mu jaaxal ñu bari fa la defaru yem fa la defaru yem mooy jëflanteeg yàlla yi dàq leen bañ jeex takk nga jàkkaarloog sa borom ci ñoom di jëfal yàlla li tax du rafet dana rafet ba fa yem ki xam yàlla kenn képp lay jëflanteel muy boromam waaye ci melo yu bokk ki xamul yàlla nag moom mbindeef yi lay jëflanteel su ko defee mën naa saaka mën naa xeex mën naa dugg ci lu ne ndax ay mbindeef lay jëflanteel su ko nag diggante mbindeef lu waaye diggante jaam ak boromam fonk jox cër te jëm yàlla kese lépp di rafet te lan moo koy sabab soobu tim soobu yoonu yàlla daj ci ay naxtu yu dul jeex ba mu xëy jural ko ay maqaamaat yoo xam ne daanaka ku muy jëflanteel bi ak moom waaye moom boromam moo tax boo dóoree mu ne dóoroo yàlla dóor boo xasee mu ne xasee yàlla xas loo ko lebal rek day gis ne bi yow boromam la ndax du woyof walaay faral di wax ne léeg-léeg sax boo bëggee jàppanteeg nit ñu ne la seet ci yàlla seet ci yàlla bu ko ci gisee nu muy mel lool jekk lool taaru lool te am solo lool nag te gis yàlla ngeen mooy sa bopp bu ñu nee gis yàlla rek nga am ñoo déggee weddi waa ji te yow ni nga déggee bokk la ñu wax koo weddi sa bopp nga wet li weddi ko gis yàlla mu ne ah kay moom képp laay gis nga ne waxut dëgg yàlla kenn du ko gis fekk ne yàlla kenn du gis gi nga wax li nga déggee wax ji la ndax bokk naa ñu wax kan mooy jóg wax loo xam ne leer na ko ne wérul koo xam ne li mu wax leer na ko ne wérul mu wax ko kooku du kon balaa nga doon weddi laaj ko ba noppi mu leeral li mu wax lan la su waa nga xam ba xam lu ñuy weddi lan déet aka mën a nekk gis bi yàlla mooy gis boo koy faral di misaal ci saf xorom diw aka saf xorom nga dem ci diw nag daal di jël yaram wi mar safu la xorom nga ne diw waxul dëgg diw dëgg gi li nga déggee ci li mu wax loolu nga wax ne waxul dëgg mais li nga dégg bokkul ak li mu wax kon weddee boo ko sa bopp nga weddi yow ಬಗೆದಾಗಿ ಬಳಿ ಗಿಜಿ ಆದ ಗುಂಜೆ ಗಿಜಿ ಆದ್ರೆ ದೇವ್ದೆ ಯಾರ ಕೆಂದು ಗುಗಿಸ್ ಯಾರ ಕೆಂದು ಗುಗಿಸ್ ಬಿಗ ವಕ್ಕಿನ ಕೆಂದು ಗೋ ಅಪ್ಪ ಕಿಕೋ ಕಿವ ಲೋರ ಬದು ಬಕ್ಕೋ ವೇದಿ ಮೂರು ಮುಗನ ಗುರೇ ಕೆ ಮುಗಿ ನೀ ಫೆಕ್ ci barat gis ko bayyi wat ko genn ni gis na yalla li ku weddi ne moy gis yalla jappale nga yalla yalla mën ta nek parce que barat ba ngay fekk yalla ba lay gis na ko buñ def la luñ sakk la ba ko yalla sakko tew yalla am na te yàlla du soppi ko bi nam meloon démb la mel tey ba bii waaye réere yàlla nag moo xus ci jaam yi ba nga xam ne am na yoo xam ne boo ko waxee ci yàlla sax weddi lay gën a yomb ci gëm la wala Cheikh Moussa daan wax ne jaam ñi dañoo bëri lu ñu réeree lool moo tax ñu bëri lu lool te dara sax moo tax xam-xam la te yittewoo xam-xam du ay caaxaan xam-xam dafa matu yittewoo te xaalis bii daa mel ni moom moo ñu gën a yitteel ca xam-xam moo tax buñ duggee ci géewu xam-xam rek nga ci yu bari léeg-léeg boo wiitee sax saxel am ci yu bëgg a dem nga daal di wuti ku la wéttal parce que da ngay ragal ci ku mu la fi indee yaay xel ak lay xittal ci bunti xam-xam yoo xam ne mënoon na laa topp dina topp ba nga xëy gàtt boo gàggee ne wuti ku la gàggal ci waaye day mel ni suñu dañ kumpa ak bëgg lu baax ak bëgg suñu borom dafa des yàlla daf ñoo bindee noo xam ne buñ wéetee tuuti rek am lu ñu gës bu ci suñu bopp ngir delloo ñu ci suñu borom subhanahu wa taala waaye duñ ko déglu dañuy wéttali guddi ay bàyyi am a nanga def bàyyi ak jàmm mën naa wéet ca kër gaa tax ma xaaral ma ñëw ci yow da koy ragal sax bi fekk wéet li ci nekk ci taw féex une saa saa ñaata yoon lu wéet ci xaal yi ba xëy yàlla feeñu te ko war a dafa am solo boo wéetee seetantal na xool rawatina boo dëkk góor yàlla bu lay junj yenn yi xalaatal rek seetantal yaay kan ak mat a bàyyi xel mën nga cee nekk diir bu yàgg diir bu yàgg ba xëy génn kër gi wuti ku la gindi ci yow yaay kan parce que da ngay làmb di làmb di gàgg rek maay kan doomu diw. ak jiw ak jiw ak jiw bu dee lii képp nga xam sa bopp yoo xamagoo sa bopp doomu diw yàggul te doomu diw doo dégg rek diw sax xam na ne ganam la ay waay soxna si de am na gan waaw soxna si bu dee dafa am gan gan gi ndax fi mu feeñ fa la dëkk wala fa bàyyi ko fa mu bàyyi ko la dëkk kon gan gi moom ak fi mu gane benn mbokk taalibe dafay waxtaan ak professeur ñuy laaj ci at yi juddu vous êtes né en quelle année ñoom élèves yi ñuy wax jékki-jékki mbokk taal laaj professeur bi yow monsieur ban année nga gën a jamono mu ne ko at sangam mu xool at mi jiitu at moomu ne ko monsieur foo nekkoon at moomu foo nekkoon mu ne ko ça c'est une question absurde laaj la boo xam ne jarta laaj xelul fekk xelul na de kenn ku ci nekk seetantalal at mi nga gën a jamono at moo ko jiitu foo nekkoon. ndax sañ ngaa wax ne aw amoon waaye foo nekkoon nga gàcc ndax amul xam-xam bu la ci génne buñ faatoo ba mu am ñaari fan ñetti fan fu ñuy ne suñu kumpa ndax duñ ko liggéey ci wàllu yi waaye dara dañuy bàyyi mu gët rek te liñ ñuy wax mën naa demee noona waaye buñ ko seetantalee xam ne jaar na utaat xam-xam buy tax mu gën a leer ñi faatu ña nga barsàq loolu la ñuy wax barsàq bokkul ci àddina te ku bëgg a siyaare ci almeer yi almeer yi fu mu bokk ci àddina la ni almeer yi miir te ñi faatu ña nga barsàq fuy barsàq léegi duñ wuti xam-xam bu ñu leeral nga koy misaal ci nit ki sukkuraat ci biir kër gi sukkuraat sukkuraat ba nga ne diwle naxa na ba dem ay waaye naxa na ba dem xam nga yaa ko wax nga daal di jël yaram ba nga xam ne moom la solo di ca jëfee di ca waxee dem ba ci barab wax ci suur léegi nag daal ne denc nañ ko barab sànq xoola ñaari wax yi yaa ne fee naxa na ba dem waaye yaa ne denc nañ ko fii kiñ denc fi ak a naxa ba dem moom kan moo ciy waaju dëgg-dëgg bokkuñu te yi dafa bokk ci primordial yi nga xam ne ay daj yu wér yoo xam ne nit daf ko war a teel a xam su ko defee moo xam lan moo yee ci yaram wi jëflanteeg yaram wi ci wàllu woowa daldi di xamaan nag moom nit moom mooy kan mën a jëflanteeg boppam ca wàllu woowa bu loolee amul dafay jaxase yu te tegal la ceeb bu neex nga lekk ba sa biir bi fees dell nga ne akamaa suur fekk ne loolee nga naan suur na boo faatu woon fa nga koy bàyyi ak rek gaayam ak sa bopp nag barab boo xam ne boo xam ne yaa nga xiif xiif bu jéggi dayo mar mar bu jéggi dayo waaye yaram loo lekk ak naan ak sañse bu jekk foo ko bàyyi fii nga ko bàyyi te liñ ciy daj yëre yi liñ ciy daj parfum yi liñ ciy daj saabu yi liñ ciy daj oto yi liñ ciy daj kër yi liñ ciy daj lal yi liñ ciy daj dara bi yem nangam ak nangam ci lépp yaram moom waaye léegi yaram di ko sol tey dëgg dëgg nit nekk ci biir mën a wax ne sama loxo bi sama tànk bi sama nangam ak nangam ak nangam te ki naan sama sama sama boo opéré woon ba mu jeex doole mi ngi nii te kooku mooy borom yooyu kooku saa yër baatin gannaaw baatin la baatin koy dundal baatin baatin koy dundal. saayir saayir koy dundal moo tax ma ne mbay do xew yi mbay do xew yi napp do xew yi ak mboolem yi nga xam ne mooy dimbali yaram ngir mu mën a des ci kaw suuf saa su nekk da gis ni koy yàlla jàppandalee dem naa ba ñu xalaat ne boo seetloo sax produit yu gaaw yi nit ñi yokk dañuy joué engrais beeg ginaar bi nga xam ne boo ko bàyyi woon mu màgg normal lu ci nekk ñu bàyyi bi maa ko yor maa war koo xaar ngir mën koo lekk te ñun nit ñi ñuy gën di bëri bés bu bés bu bés ñam raare ah day woote faaw ñu lekk faaw ñu naan yàlla indi jumtukaay yu mën a jëfandikoo mu gaaw lool ndax dañuy gën di bëri te war a lekk war a naan xel ñu suñu borom gi foo ko natt weesu na ko te gis na kii peru di ko seetaan sal dafay yëpp cofeelam ci yàlla sa cofee ci yàlla bu dolli ko rek jëfal yàlla jaamu yàlla sàkku ngërëmam nekk lu jàppandal ci yow waaye dañ koy fàtte ci suñu dund day mel ni nit warul di xalaat boromam di ko gën a bëgg di gën a am ci moom cofeel dundam gépp mu war ko koo jébbal di dundee moom waaye day yaakaar daf ko war a nekk rek ci nit ñi di jëflanteeg ñoom dund boo xam ne lépp yaa ngi ko wékki ci nit ñi te boo faatoo ñoo lay denc jëfante ak ñoom mënut a ñàkk waaye xam nga ne jëfante gi li ko waral daal mooy sàkku sa ngërëmal borom sa diir dund li nga fiy des te moo la fi bàyyi li ko fi dese bés boo yóbbu yitte woo yóbbu ku mën ne ko du sotti am nga إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا رب من دي مي نغي داو دا غي داجي موم لو خنا بوكو دا داجي موم بوكو دون سيتانتا سي خيل داي ملني داو غي دا لا كوي جيغال boo doxoon xëy na mu gën a yéex waaye gars yi dañuy daw dee yàlla ne boo ko dawee nag fa nga jaar moom fa lay génnee dajeeg yow kon dégg ngaa daal te toog dégg ko moom suñu borom bi nga xam ne moo naan dee jógal jël ni bëgg nga dundee ko nga dundee ko ni yow doo ragal dee doo ko ragal de loo koy ragal nga yàlla ba noppi xol boo xasee ba ragal yàlla gënaan ragal xajaatu ci waaye bu yàlla ragal lu ne lu ne dana ko ragal dana ragal ngóot ragal jiit ragal muus ragal nanga ragal ragal ñàkk xam yàlla ragal waaye bu xasee ba xam yàlla daal na day di wax ne neex foo ko fekk yàlla ko ko def foo ko fekk yàlla ko def waaye neex pire yàlla ci boppam la ko def boo fi bàyyee yàlla foo fekki neex bu la ko joxee tey bu subaa nga laajaat la ko ginnaaw suba nga daw neex pire doo ci yàlla moo tax boo ko xasee ba laal te muy dëkk ci yow jeex na yegg si nga teg nga say bagage geneen neex mënatoo dox sa diggante sa bopp déedéet bu lay jaral mooy yàlla doo ko dégg mukk benn arrêté laa dafa wax ne bañ a mooy yàlla dem sawara moo ko gënal parce que xolam mi ngi féexee ci méngoo boromam bu méngoo boromam bu ko yàlla tànnalee tàmbal ko sawara sax méngoo gi méngoo yàlla dana tax sawara du ko mi ngi mel ne xale bu def dara nga ne ko yaa ko def dóor bu muy bëgg a dee bu dee borom jom dóor ya du ko sax deful nga ne ko yow la dóor ko bu dee jom dóor yi nu mu koy saxee waaye kañ ñàkk jom bu fekkee moo def defi pexe ba raw kooku buñ ko dóorul moom waroon naa am jom ju ko dóor loolu nit biir. nee nañ benn taali bi jëmale sëñ Tuubaa Tuubaa bi da ko daa mos a tere dox bu yenn waxtu yi bi ko bi ko doxee ñu jàpp ko moo def fi pexe ba raw ñëw ci sëñ bi nag koo bàpp Tuubaa bi ma jàppoon de waaye def naa pexe ba raw sëñ bi ne ko ñàkk jóg jii de xaw ma foo ko jëlee waaye du boobu xam na ne luñ tere la def yaa def lu ñuy tere ke ñu jàpp ne fitna la nga fexe bëri du jox du jox dafa naan sëñ bi am na ci taarix Cheikh Moussa sax ñoo xam ne dañ mos a def dara ci jamono yu yàgg ya dawee dëkk ba ñëw mu ne fañ ko daan defee de duñ fa bàyyi ko. Hmm? waaw mos naa ko dégg ci waxtaan sëñ bi sëñ bi ko waxoon boo defee dara ci mbir mbir boo ko defee ci barab xaar fa daan ya mooy jot. Hmm. um ñu dajee jébbalul wala ñu ray daal bi sëñ Tuubaa Tuubaa na bare ci bi ñu gis nga mais daal lañ ko def waaye ko defee bu noppi duñ ko jóge loo jox gis nga valeur yi moo doy waar ci ji jamono ñoom jom ñoom fulla ñoom fayda ñoom ngor ña ngay gàddaay di dem te mel na ni bëgg ku leen delloo si kon kër yi nu muy neex dund bi nu muy neex du sotti dañ yaakaar ne alal mooy sottal lépp fekk alal lim man am na borom doonte mën naa denc lu bari nag waaye lii la ñuy jël valoriser ko ci nit ñi ba dañuy yaakaar ne ku defut lii woo ku defut lii lekkoo loolu naxal bari te dañ cee yaras maanaam li naan complexe am ne séeréer boo xam ne tegal ko plaatu cere moo ko gënal ay hamburger di shawarma te bëgg nañ ñoo gëm la ne ku lekkul hamburger lekkoo daa mel ni dundoo nga bëggoo gëm nag di daw ci hamburger ak shawarma te cere gën ko ci sa yaram fuuf nga daal di yaras complexe kare yi boo yokku ci bam melni mel ni kare yu tubaab nangam ak nangam yow jigen rafeto wala nga wer ko defé nga dem xeesal yi dugg ci coono go xam ne kéemaan la mën naa jural leneen ci sa yaram dañ laa nax rek dila yalla tanal mo gën ci yow lu mom yalla mo ne ko gëmé té jëf jëf ci sel fa la yenn xeeran tay bis na jëf bi té mi ci gëm yalla té jëf lu baax gëm yàlla gëm gu wér li des ci sa dund yépp nga fas yéene xool li yàlla gërëm nga ne ca ñàpp sax ca dund gu taw féexee gi nii feneen foo ko wër doo ko fekk lu nga dikkal it istidraat lay doon yàllaa ci la ci nam ma duma góor gi bu la xëppee xaalis duma la ci bi bu la xëppee wér gu yaram duma la ci bi boo ko jàppee xéewal bu xéewal naxee mbaay la ngir mën laa sànq rek ki nekkat nga def ci dara ngir rey bëy boo bëgg a jàpp nga def ci dara rek buy ñëw day yaakaar ne ñam la mu war a jëfandikoo fekk baax baax la yor am na ñoo xam ne nii lañ suñ borom di jëflanteeg ñoom xëpp leen wér gu yaram xëpp leen alal xëpp leen nangam ak nangam waaye liñ ci jublu mooy duumaale fekk bu dee góor yàlla bi nag suñ borom da ko ciy nattoo mu daal di koy def bunt bu muy jaaree ngir sàkk gërëmal borom bu wéree da koy wutee ngërëmal yàlla bu amee alal wutee ko ngërëmal yàlla bu amee doole wutee ko ngërëmal yàlla léppam léppam dara la ko borom ngir sàkku ngërëmam lii mooy ku soobu yoonu yàlla moo tax suñu borom ne ndax da ngeen yaakaar ne dama leen di bàyyi ngeen ne gëm nañ te yéen duñ leen nattu déedéet doo ko dégg mu moo tax ne foo fekk borom barke xamal ne xaw naa de borom barke foo ko fekk ne yëgal ne xaw naa de maam Cheikh Rafa daal na wax ne nee na léget góomu koy jur foo fekk léget ci yaram bi rek ne góom bu wér la waaye léget boo xam ne góom juru ko nee na mën na nekk loolu mooy maqaam suñu borom yi mënoo koo laal te duwut ne daal foo jaar mënta nekk kon faw nga nangoo soobu yoonu suñu borom mun nattu ya nga xam ne moo la moo laxasu ci biir yoon wi te day xëy nag maqaama ya moo la mën defar la tàggat la ba dañuy àgg ci pays boo ne sa lépp sa lépp mbégte bànneex lay doon loolu du xëy rek sotti boo seetloo mbiru suñu borom day gis dund boo xam ne dafa mel ni pastille pastille maa ngi koy xalaat sax jëriñu ma mais pastille booy tàmbali ni muy mel saf saa koog suukar neex lool waaye fu mu jóg xakk sa boobu du xéewal bànneexu bànneexu bànneexu gis nga booy bànneexu ci àddina ba jóge aw xal bànneex bi na muy def ca saasa lay daal di jeex balaa nga am jàmm loolu soo koy dabuwaat na ne ma tàmbali ci bànneex laa nekkoon waaye xam bi yàq na lépp loolu boo koy misaal mooy dund guy teree sawara dund guy teree sawara suñ tubaab moom la tekki woon ci adduniyaa sijnul mu'min wa jannatul kafir adduna kaso ci ki gëm yàlla waaye àjjana yéefér suñ tubaab dane jullit jullit àjjana la dëkk ku dëkk àjjana la ko ca tee tàbbi kaso la ci moom mu ne yéeféer sawara dëkk ku dëkk sawara la ko netee taab bi àjjana ci moom sawara doy na waar lool la tax yéeféer tàbbeekul sawara mooy nekk nekk ci kaw suuf di dund moom addu adduna kon àjjanaam la jullit na fa la dëkk àjjana ku dëkk àjjana war faa ñibbi la ko fa tee taab bi kaso lay doon kaso la ànd ak i coono ak fitna waaye da koy muñ te jëm yàlla kese tax boo ci bàyyi ko rek tàbbi koo xam ne bànneex kese kese kese la bu amul naqar te loolu bu fekkee yëpp yàlla am na bànneex boobu fii nga koy tàmbalee dund balaa fële min janna ilaa janna lay doon suñu tool daan na wax ne maarifatu billaahi maarifatu billaahi moo lay may ñaari àjjana mooy àjjana ci kaw suuf bu ëllëgee nga tàggoo àjjana wa liman xaafa maqaama rabbihi jannataani Sëñ Tuubaa ne maarifati billaahi mooy àjjana ju teew dégg nga Cheikh Moussa la wax te mu tekki sax wan Sëñ Tuubaa ji nee na keroog ba nga yëgee baat bi nga tàbbi laa ilaaha illallah boo ko yëgee tàbbi nga àjjana joo xam ne naqar bu bëggee dugg sa xol fu muy te neex naa lay ki dem ne ku dul yàlla dogalul te lu am yàlla te yàlla lu mu def dafa gën bu ko fi naqari nit bu ko dara naqareetul lan moo nekk ci xolam bànneex képp bu naqar bëggee dugg fu waaye bu gëm yàlla gi wérul yàlla di dogal lu la neexu sa xol kañ lay dal du dal mukk ca ndax da ngaa nekk ci këru nattu ci këru fitna nangu bi koy nangu xam ne suñu borom sañ na ko ci yow mooy woyof fa te lii balaa am dañ laa tarbiya tarxiya la mooy suñ xuma fi mu waxtaanee sànq ci saafara biñ war a saafara jàmm bi su ko defee mu mën a wér xam nga jàngoro baati li ci doy waar par rapport ak jàngoro yi saa yi mooy jàngoro yi baatin day neex xanaa ki ñaan la ci métti jàngoro yi yaram nag day nga naan sama bopp bii boo xamee dina ma yóbbu kon faji ko dana yóbbu sama biir bii ni muy méttee na doy kon faji ko du yomb ndax day métti jàngoro yi baatin nag moom doo dégg métti gi doo ko yëg waaye bu baax moo koy ñëw xam ne kii tawat bi foo ko nattu weesu na ko mu yëgale ne da ngaa feebar faji gi waaye boo jàppee ne feebaroo sax doo ko ku rëy di rëy rëylu ku rëy di rëy rëylu rëy rëylu gi day neex ci moom lool te mën naa bañ a yëg ne moom rëy gi ci moom kañ la koy faj boromu tiitar boromu bëgg àddina boromu réere yàlla mën naa bañ a yëg ne jàngoro yi mi ngi ci moom kon kañ koy faj waaye ku baax moo ko ciy dimbali moo xam ne kat am na tawat yoo xam ne moo gën saafara ko moo gën ci moom leneen loolu moo rek mu mën ko faj ji moo tax ba demee ci hôpitalu saa yi bii hôpitalu yaram yi day fees jàll gars yi di faj yaram waaye boo demee ci hôpital war a fajee xol yi hôpital war a fajee rëy war a faj kiñaan war a faj gisal war a faj bokkaale yàlla ah foofu dugg bariwu fa ñee xëy rek li ma sama yitte mooy ku ma fajal sama rëy gii sama gisal gi ma dindi te xoolal gisal bi jamono dañuy indil jumtukaay boo xam ne saa su nekk gisal ñun jàppante jéggi na dara booy sàkkat bu yàq sa ko defee ñëpp xam ne màggal si wax da nga waajal col ko ba nga xam ne tuwaatkaat te yow boo yàq dama koy far gis nga xam-xam boobu Cheikh Moussa yàlla na ko yàlla fay màggal gi di ko seen Tuuba digle jumaa ji sax fondation bi màggal bi ko sëñ Tuubaa dig jumaa ji laa wax amaguñ te am na koo xam ne yaakaar na ne bu màggalee demul te jumaa ja màggalul kon xanaa sëñ bi moom mos a màggal moom mos a màggale jumaa sax fa moom sëñ Tuubaa màggal gi mu fekkee yëpp njaareel kon ni ñuy màggale liñ war a xam a bay te defuñ ci benn yitte mag ñi daan jëmbal ci sëñ Tuubaa di sukk ak raam mu lu ne lan lañ doon wut ci sëñ bi loolu dañ ko xalaat. mooy la naan patt rek dox doxu loo xam ne day mel ni ñii la war a fekk ne boo amee xel dëgg-dëgg beru tuuti di nga ne am na loo xam ne mag ñi biñ toppee sëñ Tuubaa loolu la defoon ci ñoom moo tax ñu wëlbatiku dellu seen dëkk am lu fay bañ naw leen fonk leen seeni doom sax jéem lu ci ñoom luñ fa jëlee ko waaye léegi loolu dalaa waroon sa diggante ak sëriñ bi nga jàppee sëñ Tuubaa damay faral di wax ne bépp sëriñ boo maam Cheikh Ibra Fall moom war ki nga maam Cheikh Ibra Fall mooy ki nga ñëw doon taalibeem moom mi nga xam ne moom moo la Serigne Touba mooy sëriñ bu ànd gi nag ñu roog bee fan nga war a teeree la maam Cheikh Ibra Fall naan maay maam Cheikh Ibra Fall rek sëriñ bi moom kañ jël Serigne Touba wala waru koo doon bu fekkee waru koo doon kay yow teel sax maam Cheikh Ibra Fall ba dajeeg Serigne Touba nag daal maam Cheikh Ibra Fall su ko defee nga xëy wax ne sës la sar sarale ah yàlla baa jaamu lii mooy am même mat na sëñ Tuubaa waaye dañ naan taalibe yi mat leen maam Saraay Faal mat leen maam Saraay Faal ba kay bu ñuy mat maam Saraay Faal yéen it mat leen sëñ Tuubaa lii moo waral moo tax naan Tuubaa li am te murid daanaka nit bare ko mokka waaye bayit boobu di soññ taalibe yi bayit yi ko jiitu yëpp sëriñ si lay soñ waaye kenn du ko wax mel ni waroon sëñ Tuubaa gis nga dama koy faral di wax ñii sëriñ ak ñii taalibe ci yoon wépp ci keppaaru sëñ Tuubaa ñëpp taalibe la ñuy doon mu sañee na digal sañee na dara te def na ko digal na sëriñ si digal taalibe waaye liñ digal taalibe yi gën a siiw parce que taalibe yi dañ gën a soxla seen yëngu fekk sëriñ si a soxla taalibe yëngoo te sëriñ si jaruñu ko yëngu yooyu day yàqu rek parce que li war a ji mën ko bañ a jur bi waaye ñi nga xam ne buñ yëngoo ba noppi ñoo ko a yëkkati finance nag ah ñooñu war nañoo mën luñ doon de te sëñ bi ak a wax ak ñoom waxta biri rijaala xam la soxba ولا تصاحبهم رك الله رحمة سنت وادي أنا بلا ذا جيب بقول شيء كأنه نتوقع خال بعام دفلا ورا برام قيمة تبلو كل كل كل بقى عبدنا كل كل بقى عبدنا دين دين بقى عبدنا كيو يوم كل خير كنا أبي حي من تبلو من هذا المكان سرين بوي يوم غير مفاد لمو دلنا خبر لما تبي تعرف فك دكتور بنا ويسا من ويا يسا وكبيرنا مراي لنا وكاي حاجة مساو كبيمتي نور خلنا منه parce que saa yër la bu la bi gën a feebar da nga koy xam ndax saa yër la bu dee baatin nag sëñ bi mën na laa gën a feebar fuuf te doo ko xam yàlla bu mu yeewu la dana koy nëbb doo ko xam mukk mukk mukk mukk fa muy defee yu bonam taalibe di yëg taalibe xam waaye ndax mën na koo nëbb yàlla déedéet yées nag moo tax moo xam ne ku bon la di woote waa ak jafe yées waaye njariñ ya ca mën a juddoo day tax bi bu mën koo nëbb defi pexe waaye mag ñi aka ñoo xarañ aka ñu cee yeete balaa ngaa sóobu xoolal balaa ngaa nangam xoolal booy ànd ak ànd la diw ak diw ak diw fekk fa lu bari boo demee ci oqal fekk fa lu bari boo demee marit foofu atum sëntuwaane wa man ala xayri ilaahi dallaka fa fira minhu innahu adallaka ku la tegtal keneen ku dul yàlla sëntuwaane na daw ko ndax dafay sànq rek wala sànq bii day wax ne sëriñ su ma tee la ca moom ba tax nga topp ko lay def ci yow ba la yëg waaye sëriñ day baax kum jur mu baax kum jur mu baax ñun nag dañuy wut mbaax kum jur muy wut mbaax waaye yow xanaa amoon mbaax ci sëriñ bi wala waroo ko sëriñ bi day baax di jur muy baax yow nag da ngay wut mbaax di jur muy wut mbaax bu fekkee da ngay wut mbaax da koy am boo juree war koo mën a jox mbaax mais di def yow def si su ko defee ñu ne nag daa ñëw indi loo xam ne xamuñu ñu koo xam sëñ Moussa dafa woy sëñ Tuubaa ne ko defar ngaw jàmbur defar ngaw mbokk defar ngaw jàmbur ba ñëpp jag daal di jàpp nag sa jàmbur moom danaan defar mbokk mu ko nangul jàmbur bu ko nangul rek mu defar yëpp amut kiiraay waxoon na fi ne aw fi doom aw fi jabar aw fi dara li fi nekk fi ne te koy may. ku jéggalu bokk ku jéggalu bokkoo doonte doon la a la sëñ Mor Moussa wax nañ xëy na bis ñëw jéggalu sëñ Tuubaa bi mu jéggalul sëñ bi ne ko daa ñëw ne ko damaa ñëw ngir mbir mu ne ko mbir ma damaa ñëw ngir jox na sama bopp sëñ Tuubaa ne ko sàllaaw de lii nga def njëkk nga koy def bëggoon naa la ko digal nga def waaye def gi nga ko def te santuma la ko moo gën ci yow fuuf su ma la ko santoon nga soog koy def waaye sàllaaw de Modou Moussa lii nga def soo ko def doon dara jébbalu daa am luy juddu ginnaaw ga looloo tax mu ne ko boo ko defutoon doo doon dara loolu di juddu ci ginnaaw njébbal mooy def nit nit piir boo ko la xotti bi rek de yor jëmm ji loxo yi tànk ñu ne nit a ngoog jëmmi nit a nekk noo lay di dox ci biir lu yées nit mën na fay muy màttante ka xeex a faat nit mala yi boo koy laal rek di nit ni du nit nga jëflante maa wax loolu waaye karkaas bi nag nit la dégg nga sëñ Tuubaa wax ci jëwër ne fa kullu man yanzuru faqul kilaab mu ne fal kalbu xayrun moo tax ñu ne gën ci middee bi dafa mat a leeral dugg na da ngaa yor bopp rek yooyu tànk yooyu loxo yu joow nga yaakaar ne ci nit ñi nga bokk xëy na génn nga ci bu yàgg di daw te déllu si la yomb ak mën a nekk sëñ Tuubaa dana ku xool xaj ne xaj bii maa ko gën sëñ Tuubaa ne la xaj baa la gën te nit ñi lay wax demal ci alquran yàlla bu ne ulaayka hum xayrul bariya mu ne ulaayka hum sharrul bariya ñan lay wax nit ñi ñoo gën ci mbindeef yi wëlbati ko mu ne ñii de ñoo yées ci mbindeef yi ñii lan moo leen tax gën mooy seen gëm yàlla ak seen jëf jëf ju seet waaye ñii seen weddi gi yàlla ak seen kufru moo leen boole ci ñu yées te boo xoolee yaram wi nit ngay gis waaye li ci biir lan la leneen la sëriñ bu mat sëriñ ngay jonjoor mu jëlee la ci suuf di yéeg ak yow di yéeg ak yow ba boo làngeeg malaaka yi ñu lay war maa di la jox cër sëñ bi daan na wax ne kër gii ku fi dugg liñ lay digal nga di ko def liñ lay tere nga di ko bàyyi boo fi bàyyi ko dañuy bàkkeelu ci yow daa mun a jëmee waaye léegi loolu daa jeex bu jeexee day mel ni sëñ bi amul loolu moom dafa fay fekkoon sàmm ko ñoŋal ko ba mu ñoŋ kon dana am jàmbaar joo xam ne dana ñëw yeesal loola Cheikh Moussa lii la woote li ma yàlla yoon. ci jottali xeerul aalamina ca Màkka mu teg ko ci loxo xaadimu rasul mii di jëwriñam xaadimu rasul yor na ko fii ci daaw lu mu ci teg ma yëkkati ko ca kaw ni ko bëgg ñëwal jël du ma ci taxaw du ma ci dellu ginnaaw te kanam kanam la jëm kum neex kanam la jëm kum naqari kanam la jëm moo ko indi ñoo daaru sori na de ko indi fii dara la dara la te naxee bàyyi nag am na koo xam ne du ci parce que day yër yor xelam di yër yor xelam muy gën gën di leer si loolay tax bu jàpp bu jàppee ne kenn mën tax bon ba yooyu wax nañu misaal bu génn ci mbedd mi for wurus ñëw waajur xamul loo far mooy la sànni ci àll ba te yow li nga yor xam nga ne moom bi la koy sànni la soxla na ak ko koo soxla ah danañu waxtaan de fonk naa lool bàyyi fonk naa lool lay waaye lii ma yor xam naa ko soxlawu ma koo xam waxoo dëgg sa bàyyi maa la mag sànnil mu ne la waaye tey def ndànk man doxuma ci ne jàpp ma dèjà gis ngeen li ngay jéem a layee noonu moom am ndox la koy jàppee ndax mos la wax nga tontu ku mos la wax nga tontu nga daal di am loo for dikk moom au lieu mu xalaat ne est-ce que man maa xaw a juum sax parce mag léeg-léeg juum na ko ci kanam xale du suñu aada te fekk naa nekk nag puso bu réer la dëgg dañ koy wax di waaye gëmuñu ko dëgg puso bu réer la xale mën na koo for. mag mën na koo for dañuy wax waaye bu mag foree ñu nangu waaye bu xaaree foree moom jafe-jafe dana am sa benn wóor la nee day jëf <laughs> jullee doom mag mag mu ci jafe ma ko loo ko teree mu ne gàggal ci mag <laughs> waaw li ci mën a juddoo bari nettal nañ xale gis mag muy jàpp du ñuy jàppoo dara baax nee na xale yi ñëw ne ko maam mën naa jàpp kii ne ko mënoo ko maam àttin nee na ki njëkk a jàpp jàpp mag mu jàppoo pare keneen ki jàpp ni ñu war a jàppoo ñu ne ko mag ku ci baax la mu ne yéen man gën a jàpp man ñii ngeen di jàngal fi ñu jàpp loolu ay xarañ mag boo bëggee wax ak moom da ngay xarañ waaye boo ñëwee ne ko mag mu toll ni yow sa béy jaww yi ndekete xamoo ko ni ñuy jàpp dana la duma dumalu la loolu la ñuy faral dal nag dañuy dem fari maayi fa mu nekk alal bi leer su ko defee bàyyi waran day bu ñu waxee nga ne ko bàyyi xam nga xaw ma yàlla dégg nga tàggat coono nga pour dem yaa ko doon teg booy naxante la moom tànk tànk romb ko tànk tànk ba nangu ko dana xam ne léegi wurus na ah man maa defoon waaye mag nga ne ko yaa defoon man maa wér ah yombut de te fekk na dañ foog wurus bu rëy a rëy ci dara des choses moo tax ñu bàyyi daan def dañ daan def yëpp doyoo doy waar di foog a caaxaan jàpp na muy dund. ñu xëy dajeeg Cheikh Moussa ñu jël loolu la sànni fële suñu yëre soppeeku suñu melo soppeeku kurus na ko baaxoo la bu xëy demee ba yokk di tudd baatu laa ilaaha illallaah lépp lu yàlla gërëm mu dëgg ko ñu ne sama doom bi dox na ndox gi baax rek ñu gën a tuyaat la yàlla sëñ Tuubaa bi na de xaar bu sa biir dañoo wax ne damaa dese ku toll ni sëñ Tuubaa ñu koy ji ak ndox ba mu ne istaana safaatuna idaamatul wirdi wal askaari wal fikari maa ngi sant yàlla bu dee sama ndox mooy idaamatul wirdi taxul di wirdi wal askaari ak di sikar wal fikari ak di fikra fikru bi ñuy faral di wax na bu dee sax yii mooy sama ndox alhamdulilah mooy ndox gi ñuy jiñ di mooy seen fa daan wax ne ku tekkul dof dafa ko waaye ku def dégg dof du bokk nuroo waaye moo tax bi ñuy def philosophie dafa am ñaari ndox mooy anormal par excès ak anormal par défaut. dafa am koo sut ci xel ak xalaat daal di koy tuddee ndox parce que yaa ko sut mooy ñi seen xel yi feebar te ñuy def loo xam ne na ak normes sociaux yi lekk ci mbalit mooy nangamoon nangam tax gis nga ku dofut mën na cee laal waaye dafa am xam danaa sut ëpp la xel di dox ci onde yooyu yëngu nga ne waa ji fekk ne waa ji yaay dox bi yow. wax nañ benn waaye mos a romb ci asile bu ñuy denc ay dof fa oto bu kërëbee boo dee bi kërëbee mu génnee ruu ñu ruu ruu ruu ruu oto bi la génnee génnee vis yi bi mu génnee vis yi di changé ruu yi ci la laal vis yi vis yi daanu ci tegu bi mu daal di jom bi nan lay pën a bu bees bi mu war a changé bi nga xam ne moo yàq fi muy toogee te xalaat waa ji génn di ko xool jàpp ne dof la ndax nañ solo waaye ñu ko sëñ bi gis nga yeneen ñetti pëne yi bu ci nekk ñeenti wiis a ngi ñeenti wiis yooyu mën nga cee génnee ci ku nekk benn dinga am ñetti wiis nga wiise ko sa pëne bii daal di dem wuti yeneen wiis après nga seere ko <laughs> waa ji li ko yéem mooy kii dof laa ko jàppe woon bu génnee ci fi ñuy denc dof yi waaye li mu wax dofut moo tax ñu ne wax sax bu dafee nopp ñu koy déglu war a nit ñun buñ dafee waaw nañ déglu li ñuy wax ba xam waxi dof la wala waxi nit la ba xam waxi ku sëriñam nax la wala ku sëriñam génn la moo tax Cheikh Moussa xam nañ ne li may wax dëgg la waaye sama jëmu jëlee xel am na ñoo xam ne na seen ndox àgg na ci li ñuy dégg ci Cheikh Moussa muy dégg buñ sañoon fañ jokk nañ koy dégg waaye yàlla defu ko ko fii la boo ko soxlaa nag da nga see jéng rek xat fakka kab laa xat ba sa fan laa fa turu wala wala fu jaay dagg jéngi rek alhamdulilah yàlla ñu ko yàlla fay jaaraama Cheikh Moussa wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh